xanaa bokk leen ci nari nari jërëjëfal góor ñi góor ñi góor ñi na ko ñëpp wax na ko ñëpp wax Thank you. nit yi nit yi Sidi Mokhtar Kounta ibnu Cheikh Mouhamed Kounta ibnu Cheikh Naama Kounta xalifatul aam li tariqatul qaadiriya al muxtaariya al bakkaari xalifatu Cheikh Abi Naam al Kounti ñu ngi leen nuyu di leen ziyaara di doom di juróom di taalibe di ziyaare sëriñ yi waaye di la namm di sàkkukatu xam-xam di nammee borom xam-xam sëriñ bi ñu ngi lay wax ni liggéey bi nga ñu santoon comité scientifique bi te jaarale ko ci kër sa kaddu di porte parole muy Cheikh Khalifa Kounta al imaamu ratib Cheikh Sidi Omar Kunta ak sunu waajur borom dëkk bi di siñ bi ko seqal yépp liggéey bi dooree nañ ko ci alquran ndax loolu la ñu santoon limu alquran yi nga xamante ni bii rot na fi mooy ñaari téeméeri kaamil ak fanweeri kaamil ak ñeenti kaamil yàlla wërsëgale na njaboot gi ñeenti junni sooratu yaasin ak juróom-ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñaar am na ñi ci xëy muy fidaa wa ahlul kunti baatu laa ilaha illa allah am nañ ci ñetti junni ak juróom-ñeenti téeméer am nañ ci bés ba fukki junni am nañ salaatu ala fukki junni ak ñeent ak juróom am nañu ci istixfaar yi astaghfirullah al-azim fukki junni ak ñeenti ak ñetti téeméer ñu boole ko lépp nag def ko adiyatu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaan suñu borom na nga ñu ko sante yool bi suñu borom bi jox ko Cheikh Mouhamed Kounta ak i wajur ak mboolem jullit yi nekk parce waaye barke da ak tiyaaba ja yàlla sotti ko ci réew mi ndax jàmm nga ñaan jàmm nga santaane jàmm nga digle jàmm nga jox ndax jàmm jooju yàlla sotti ko ci réew sotti ko ci réew julli sotti ko ci àdduna bi ndax àdduna bi bu soxla bi ñu ngi lay doom li nga xamante ni bii xalifa mu teg ko ci kanamu njaboot gi muy coordonnateur alaaji matal la liggéeyam dafa toll waaye sa doom yi fii nekk di say taaw bàyyi si di ak rakkam yëpp ñoom itamit ànd nañu ci liggéey bi fakkastal ñu tiital ñu jaxasew ñu sunu kon nga ñaanal leen yàlla waaye sëriñ bi ñi nga bokkal réew mi bokkal ñoom njaboot bi yàlla boole leen dégg njabootam gi ci kaw suuf muy wàllu administration bi ñoom it sous préfet préfet teew ak forte délégation dañu waxoon ni du def cérémonie officielle looloo tax mbir mi toll nii kilifa yu mag ya ca kaw ñaan ñu leen ñu ñëw dañu ne préfet na rek ànd ak mu bokkal département bi ndax dañ ko bëgg yemal ndax réew mi fi mu toll ak li réew mi waaye sëriñ bi soddoo bi teew na ci jataay bi sëriñ Yunus Mbàkke di doomu sëriñ Muxtaar mu ngi ci jataay bi bi sa doom sa xarit oustaz Jiddu Ahmed bàyyi ko Mauritanie ñëwoon fi ci jamono yële passé doon liggéey ak ñun comité scientifique bi ci gëstu ci wàllu yéen di matal la yegsi ci suba laa gisee moom mu présenté téere bi téere bee nekk nii ci Kunta ak Cheikh Mouhamed rek la def gis ko mu ngi nii toog dégg nga ñaanal ko liggéey bu rëy bii nga xam ne liggéey na ko yàlla suñu borom bi defal ko ci jàmm àddina ak bu àllaaxira kàddu yi waroon na ëpp li waaye dañ koo tënk fii ndax waxtu wi te da ngeen ñoo jàngaloon ni lépp lu ñu nekk ba julli jot nañ ko bàyyi dem julli ndax lu ñu mën a ne ba dee ñoo dañ ko fay bàyyi dem dee kon sëriñ bi lii moo doon tënk su jubee teru ci niñ ko bëggee ak ni ko njaboot bi liggéeyee seen ñaan la ak mbaaxu bi loo ca yàqu doyee rek doomu aadama la ñu ngi koy jéggul yàlla di la ko jéggalu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëñ Mohamed kàddu yi mat na liñ la fi joxe woon fi tege matal nga ko léegi nag ñu jox préfet mi fi nekkal gouvernement bi mu joxe ay ñu teewlu ko bismillah préfet bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi yëkkati ay kàddu yu tedd di kàddu yu nuyoo di kàddu yu ziyaare di kàddu yu ndokkeel kàddu googu nag maa ngi yëkkati ci sama ak délégation bi nga xamante ne bii ànd naa ak ñoom délégation bu dinaa ci lim rek ñenn ci ñoom. bokk na ci sama adjoint au préfet bokk na ci tamit le sous-préfet de Pambal adjoint bokk na ci tamit le maire de la commune de Chérif Lo waaye tamit chef de service yu bëri yoo xam ne am ne le commandant la brigade de gendarmerie le coordinateur des ASP waaye tamit ki bi tegal chef d'agence de ak mbooloo takk macha allah sëriñ bi indi cant nuyu ak ziyaaru son excellence monsieur le président de la République Macky Sall yaa ngi premier ministre Amadou Ba ak mboolem gouvernement waaye tamit jaar ci monsieur le ministre de l' intérieur jaar ci monsieur le gouverneur de la ñu ñëw sëñ Sidi Muxtaar dina ko joxe ànd nag ak cawarte ànd ak mbégte ndax xam nañ ne bis bii bu ci yàlla boole sant rek amal kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziyaare di ndokkeel ci sa bisu maam bu tedd bii waaye tam di ziare mboolem ahlu Kunta ak fu ñu di nekk ak fu ñu di bàyyeekoo ci biir Sénégal wala ci bitim réew mënuñu leen dëkk yëpp ndax waxtu bi ko xat waaye ñoom ñëpp maa ngi leen di bàyyi fekk yëpp ak kilifa yi nga xam ne fekk nañ leen fi ñoom ñëpp ñu bàyyeekoo ci gox yi sori ngir ñëw ngir fekk bis bu tedd bi fàtte moom waaye maa ngi beral nuyoo ko suñu mbokk soxna yi maa ngi leen di séddale ñu ngi leen di ziar moom tamit waaye tam surtout di nuyu la jeunesse de Ndiassane la jeunesse continue gis nañ seen taxawaay rafet na taaru na dal na xel macha allah sëriñ bi wax ñu ko gudd ndax euh, timis muy jot dama ñëwoon tey ànd ak yow sa bi muy guddi gi ñu jagleel euh, Cheikh bu bu Cheikh bu Mamadou nga xam ne yaakaar naa ne dëkk bii bu ñu wax Ndiassane Cheikh bu Mamadou Kounta bu ñu ko jaglelee bis bu ne ku ci woo dañ laa bëgg a jënd yàlla def nag tey indi na ba tey jii xaar loolu dañ ci am mbégte dañuy sawar ñëw ànd ak ñoom bis nga xamante ni bii. Eh, jàpp gi nga jàpp président de la République kenn natt bi jàpp gi nga jàpp aussi mboolem gouvernement kenn jàpp gannaaw natt bi ko ñu di jàppale waaye tam ñun ñi nekk bi ñu ay ndaw nga def ñu doom def ñu lépp loo xamante ne bii da nga koy ñaanal si wàllu sa sa baaxal ko nga yéene ñu ko donc aussi kon ñu ngi sa taw di wax rek ñu ngi fàttali eh, joxe wu président de la République ak bàyyi bu ñu bàyyi xel ëllëg funte yu rawatina fii ci Ndiassane ak yéene yu am solo yoo xamante ne bii am na ko fii ci dëkk bi te am na loo xam ne bii gis ngeen ko am na loo xam ne incha allah dinañ def dinañ ci àgg na ngeen si démb dañ doon def pose première pierre le centre de santé bi nga xam ne ni président daal bi defal na ko Ndiassane nga xam ne daanaka àgg na ci deux milliards kon loolu rek lenn la ci ak yi weesu ak yi ñëw kon loolu day firndeel na rek bàyyi xel kër gi ne rawatina ëtt bi ñu toog nii muy ëttu maam Cheikh bu kon loolu nag day baax ñu fàttaliku ci sàkk rek ñaan seen bi yaa koy def naam bu ñëwee fii dinañ fàttaliwaat sàkk bu ñu sàkk ñaan nga xam ne fii yaakaar nañ ak ñaan ah, ndax barabu ñaan barabu ñaan du nangu kon nag bu ñëwee fii réew mu toll fi mu toll nii ah dinañ sàkk la seen bi nga dolli ñaan yi ñaanal président de la République yàlla may ko jàmm loolu ko sago ba ci jàmm yal na yàlla seeral kanamam yal na yàlla seeral ginnaawam yal na yàlla seeral fi waa ko jàmm ba yi ànd déggoo ba ñu mën a jëm ci développement bu nekkul dañuy def kenn mënu ko am da ko fekk da am jàmm lool loolu Kounta euh, Sidi Mokhtar ñu la ci yaakaar ñu la ci tàllal suñu loxo bu baax a baax jàmm mi mooy tax kenn ku nekk am na la doy dañoo xam ne dañu mën a jàpp jaamu yàlla sa borom ndax jaamu yàlla rek ah, ñu ngi jégalu kàddu yi xëy na xaw naa ko waaye li ñu yéene ak li ñu yónni moo toll noonu rek xam nañ ne waxtu bi sax at mi ngi sant ñëpp di gërëm comité d'organisation bi waaye tam di gërëm bu baax a baax sa doom jiite ndek yow muy porte-parole Cheikh Al Khalifa Kounta di di wax ne lépp loo ko sant. diggante ba administration bi kon ñun de liñ ci suñu wàll rafetlu nañ ko bu baax a baax ci taxawaayam ci également pasteefam ak it yéen yu am ci kër Cheikh boobu nga xam ne ñu ngi koy rafetlu bu baax di ko ñaanal moo ko ñëpp ñu àndal ci comité d'organisation bi El Hadj Mamadou ak ñoom ñëpp ñu ngi sant di gërëm rafetlu taxawaay foofu la ñu bëgg a yemale kàddu rek di wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala kii mooy doon nay borom wutaakoonu sunu borom bi yàlla joxoñ ñu ko ni yenente bi moo gën ci yéen seeni wujur julli nañ ci moom di sëlma di sant yàlla bu baax a baax baax ci xéewal gii ñu sunu borom bi defal ndax aji dem joo xam ne demam dafa war a doon tiis waaye demam waññeeku doon xéewal doon naataange bu ci yàlla boolee rek naan alhamdulillahi rabbil alamin ndax nit yàlla yi bu ñu liggéeyee yàlla ci kaw suuf suñu paree ci liggéey ba leen yàlla di fay Cheikh Mouhamed Kounta nag yàlla commencé ku koo fay dafa commencé wane ni koy fayee rek kon bu ñu yàlla boolee ci jotaay bii ci jëmm jiitee ko nga xam ni ñun ñi nekk ci ronam xam nañ ni jëmmi Cheikh Mouhamed Kounta bu wér la ci jikko ci melokaan ci doxalin kon ayyadahu llah wa nasara yal ko yàlla bàyyi suñu kanam ba li mu yéene askanu ahlul kunti ko diine maam ji yàlla am ko ko ci dundam gudd faram doon kéemaan suñu borom bi ci jaamam mi ngi sant yàlla sant nag mënta weesu alhamdulilahi rabbil alamin ngi sant ñi mu santoon lim leen sant ñu matal ko njëkk ci El Hadj Mamadou mii nga xam ne moo coordonné guddi Cheikh Bouki ba mu yegsi fii teg ko ci loxo oustaz Mohamed Babou mi nga xam ni moo yor wàllu kaamil bi haydale yi istighfar salaatu ala nabi ba tey ci suba mu ànd ak imaamu mu tëj kaamil bi muy liggéey bu jafe bu metti yàlla dimbali ko si defal ko ci najaa imaam mi nga xam ne moo jiite diine ji sëriñ bi sant na ko bu baax ndax wuutu na ko ci tumaay maamam ji lépp nag mu koy teg ci loxo sëriñ Amadou Kounta mi nga xam ne mooy chef de village mu joxal ko ko njabootu Cheikh Al Bekaay Cheikh Sidi Lamine Bour sëriñ Abdoul Rahman Cheikh Sidi Yahya Cheikh Sidi Balle Cheikh Sidi Moukhtar Alhaji Mamadou Sidi Ali alxaaji Abdul Latif ba ci cheikh bu Mouhamed Kunta Diatou cheikh bu Mouhamed Kunta jëlaat cantu cheikh bu Sidi Maxtaar nii ñu toog teg ko ci loxo ki ay kilifaam su ma nee kilifaam nag ñëjur cheikh bu Mouhamed Kunta muy ndax bi nga xam ne mooy mafqatu la si cheikh na cheikh bu Mouhamed Kunta mu jël nuyoo boobu teg ko ci loxo Serigne Cheikh nii fa toog mu teg ko ci loxo rakkam ñu tedd ja Serigne Mahfouz mu séddale ko képp ku yeewoo daal nuyoo boobu la jël jox ko Cheikh Baye daan mu joxal ko ko wuldu baay mu joxal ko ko képp ku buuna maam jur ca sànci buuna jël nuyoo boobu joxal ko ko Serigne Moulay Haydara nii mu teg ci loxo Moustapha Haydara mu dox ko Serigne xam ne Haydara ma nekk ci bu yàpp toogee xaali bu Sidi Chérif jël nuyoo boobu teg ci Cheikh Sidi Lamine mu teg ko ci loxo Mouhamed Muslim mu teg ko ci loxo Serigne Abdourahman mu joxal ko ko njabootu Cheikh Sidi Lamine Cheikh Sidi Foye Nder yëpp nuyoo boobu nag mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ngir ñëw fekk ci bis bi ne ko ñëpp ñaanal aw tawfiq ak tey si rek amul. سنة ما شاء سنة ما شاء الله سنة الله بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب فينا الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا رب ba tey jàng may lekk ñu naan gan ku fi ñëw daayira ku fi ñëw danañ la service nga xéewlu ba mu te jàmbatuñ ko ñaxtuwuñ ko parce que xam nañ ñi ay républicain lañ xam nañ ñi seen doctrine mooy on nous tue mais on ne déshonore pas kon bi seen commandant yónnee seen kilifa yónnee leen indi leen bi yor nañ ci koy taalibe te wax naa ko commandant bi léegi ci suuf kër sëriñ moo gën a méttee liggéey ci wàllu service d'ordre ndax ñun dañoo désordonné ñun ñun li ñu neex rek lañu xam waaye gis nañ ni ay nit ngeen gis nañ ngeen gis nañ ni ay nit ñu mën a wan na mer ngeen mën a maslaa ngeen fexe ngeen ba tey lépp rafet sëñ bi nee yàlla ay promotion yu kawe seen bopp yàlla aar leen liir leen yàlla bu ngeen gis ab yëngu boo xam da ngeen fay dem taxaw di def innovation ba dara di baax baax ndax ñoom itam démb ba tey di jàpp liggéey di jàppale sëriñ bi moom jàppale ci ay garab di ko jàppale si na am na loo xam ne mënuñu ko soldat borom Ndiassane ay civil lañ te civil du takk der rek na li jëndi borom civilam parce que soldat borom pas-pas la ñuy doxee mais ñii ordre la ñuy doxee si ordre boo xam ci république bi ñëpp daal ci jëm kon sëriñ bi nee nag ñu ngi ñaaral presque kon presque yàlla na leen yàlla yi nga xamante si ni ñoo fi ñëw yàlla na ñu bokk international bi di émettre partout dans na leen yàlla taxaw ñu nekk ci presse écrite bi itam bi nga xam ne mooy comité de presse di cellule de presse de Ahlul Kounta yi tey Serigne Hamdi Kounta ji di président bi sëriñ bi nee na gis na seen liggéey liggéey ngeen ci moment yu metti liggéey ngeen ci jamono yu difficile te gis na leen daal ngeen presse bi ndax yéen a leen dalal loolu itam ñu koy sant bu baax a baax di sant Croix-Rouge Sirvé ak Croix-Rouge bi nga xam ne suñu dem dem ba tey ñu ngi fi di say di ñu jàppale ci li nga xam ne si moom mooy urgence yi alhamdulilahi rabbil alamin di ñaanal service d'hygiène nga xamante si itam boobu ba tey ñu doon sàkku pompe dëkk bi yëpp sàkku nañ lu nekk ñuy ñaan pour la pour dëkk bi am hygiène bi hygiène ndax an nadaafatu min al iman mooy Serigne Cheikh nee na ci leen di sant bu baax a baax di sant Croix-Rouge di sant sapeurs pompiers bi nga xamante si ni bërki démb ba tey ñu ngi woo laaj ko mu coordinateur bi di ko wax li nga xam ne si mooy seen liggéey ak seen yéene si Cheikh Mouhamed Kounta bi li nga xam ne mooy bisu barke bi te am ñu moom Serigne bi di sant waa waañ bu baax a baax kon nag xanaa ñun suñu bos moom du yéene leen rek. amiin amiin mboolem jullit yi nga xam ne ñoo teew fii yëpp di leen ñaanal yàlla suturaal leen defal leen jàmm ci barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam di wax rek di fàttali ni dañoo nekk ci weer boo ne weer bu nekk yi ci doo xam ni la ci kéemaan boo xam ni kéemaan bu màgg la kéemaan bu kawe la xam ni képp koo xam ni ku baax nga ci kaw suuf ñaan nga yàlla may na kéemaan boobu waaye ñun ñi nga xam ni ñoo bokk ci defal kunta di sa bokk kunta defal ñu teraanga boobu ci guddi gu màgg bi muy. ci des ko saaba yàlla dogaloon suñu góor bu baax boobu di Cheikh bu Ahmed Kounta yàlla suñu borom subhanahu wa taala yëkkati woon bu moom yóbbu ko ci àjjana yàlla xam ni mooy àjjana yu kawe kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala lépp loo xam ni def nañ ko ci guddi gii yàlla na yàlla suñu borom nangul ñu ko defal ñu ko ay yiw defal ñu ko di wax ni rek joxoon nañu mawdu boo xam ni bu matale la mawdu boo xam ni moo tax yàlla yónni yonent yi mawdu boo xam ni moo tax yàlla tamit samp ay nit ñoo xam ni ñoo koy remplacer fii si kaw suuf bokk na si mbir yàlla yi ndax ñoom ñooy nga xam ni ñoo doon la yonent yi fii si kaw suuf ñoo yor seen doom ñu war a waxtaan ci li nga xam ni mooy. jàmm ak nekk benn dimbalante ci yàlla dimbalante yi ci diine dimbalante yi ci bëgg yonent bi salaa salaam waaye dimbalante yi ci li nga xam ne mooy bëgg sa mbokk jullit ñaari taxawaay yooyu ñu wax lan la suñu góor bu màgg boobu ku kawe boobu nga xam ne mooy Cheikh Ousmane Touba di wax ni góor la boo xam ne góor bu màgg bu fekkee da ngaa benn Cheikh Mouhamed Kounta di ko misaal ci ñaari taxawaay yooyu da ngay xam Cheikh Mouhamed Kounta mën na la ni mu ko mën a def mooy da ngay ci la ci cosaan ba ndax da ngaa Cheikh bu Mouhamed Kounta ci baal Kounta rek laa bëgg a ñëw ndax bu ñu waxee Kounta rek da ngay ni kii war naa mën nga xam ni mooy tasaare jàpp ak nit ñi nekk benn yéen a jàpp te yàlla dogu na ndax li nga xam ni mooy baat la boo xam ne li muy firi mooy jikko rek te jikko dafa tënku ci njëkk bi mooy xoloku naa baax Allah mooy jikko yoo xam ni da koy jikkoo ak sa borom subhanahu wa taala mooy nit ñi fexe ba nga xam li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon mooy mu jéem jikkoo sunu borom mu yor jikkoy sunu borom subhanahu wa taala mooy lan ndax yàlla mooy rahma yàlla mooy rahim nga fexe ba nekk nit koo xam ne ku am mooy maanaam nga ci ci li nga xam mooy jikkoy guddi bokk na ci ci jikko yooyu mooy nga fexe ba am ni mooy buñu naa maa ibaadi yi mooy nga yor jikko doo xam ni jikko du rafet la nga koy li ngay mën a dund ak nit ñi ci si des mooy jikko doo xam ni anfusina mooy dafay fexe ba yow sa jëm nga fexe am jikko yoo xam ne dafay sàmm tey sa jëm bopp Cheikh Mouhamed Kounta nag foofu la tàmbalee dugal yàlla suñu borom moo ko tànn ndax du ñu fàtte ni ci alamul asli alamul laahut suñu borom subhanahu wa taala bu ko dajalee li nga xam ne mooy ruu yi ne leen laaj ñu tàmbali seen borom ruu yëpp ne teg yonent bi alayhi salaatu wa salaam suñu borom jox ko ndigal kooku mu ngi jàppale gëm ñu yonent bi salaatu salaam bu gën moo leen bindee yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom la wax njëkk a wax di bale di wax ci aalimul asli boobu nga xam mooy aalimul laahu yàlla dafa def beneen aalim boo xam mooy aalimul xaqiqa ca aalim boobu nag la dajale mu ngi dale si àdduna ci 1840 1840 tënk nag benn tur boo xam ne turu yàlla la bu mag ndax boo defee un plus huit da lay jox neuf nga gis mu jox la mu jox la treize treize lu muy jàpp mooy axar kon Cheikh Mouhamed Kounta dafa dund ci li nga xam ne mooy sell ak tedd Cheikh Mouhamed Kounta dafa ñëw ci àdduna indaale li nga xam ne mooy teddaange ak sell ndax ban at boobu maamu Yonent bi sallallahu alayhi wa moom la lekkoon ko wane fële ca Màkka ngir woo gars yi ñu génn ci li nga xam mooy jàpp xërëm ak bokkaale seen borom Cheikh Mouhamed pour ne juddoo nag yàlla tur yàlla boobu la ci dëgg kon kii bu ñëwee si jàpp si àdduna ndax jàpp nañu ko kii bu ñëwee si àdduna ndax nit ñi nekk benn ñoom day naan amaat ndax Cheikh Mouhamed Kounta mu ngi dëkk ci ginnaaw waajuram bu góor gannaaw ñetti weer moom Cheikh Mouhamed Kounta mu ngi jóg def ci fukki at ak juróom-benn di seize ans seize ans nag am lu mu ëmb ndax boole seize ans un plus six la muy sept sept yooyu nag dafay jàpp juróom-ñaari bakkan mooy si fay defar ci bakkan la am loolu Cheikh Mouhamed Kounta nag taxaw ba nga xam ni ba benn yooyu juróom-ñaari si fay mu laaj ko yàlla muccal na ko ci nga xam ni ay maam baax yu baax yëpp nag mu daal di ko jël mënal ko te ndax si yooyu ndax si bi si gën a kawe mooy ndax su kaami Cheikh wax nga Kunta ndax soo nag nekkoon ndax su boo xam ne ndax su kaami maanaam la ndax su kaami mooy lan mooy bakkan bi nga xam ne dara jël ko lu yàlla suñu borom subhanahu wa taala Cheikh Mouhamed Kunta boobu nag li mu préparé ba keroog ci mbir yu bëri la ko préparé mooy li ay maam doon defee mooy fexe di taxawe guddi yi di ko julli di fexe nit di woor bëccëg yi di dimbali jaamu yàlla te yàlla tax fexe am yërmande ndax yàlla da ko si kaw suuf muy missionnaire Cheikh Mouhamed Kounta boobu nag yàlla defal ko ay teddaange yu kawe ndax nit bala ngaa nekk missionnaire dëkk boo xam ni da ngay bokk ci ñi xam ne war a remplacer Yonent bi alayhi salaatu salaam maanaam doon leen Yonent bi salaatu salaam dafa am nga war am ko Cheikh Omar ne Kunta moom nag dafa génn li nga xam ne mooy xel ndax xel dafa am tànn bu ma yàlla doon muy ku ma doon mënule ak ah, mooy ku ma boobu nag mooy tax nit ñi di mën a xalaat di mën a li ñu ko ndax nit dafa war a sàmm xelam sàmm ba ci sàmm ak sëñ ba nga xam lépp lu mu xaar rek day dëppoo sunna su yonent bi dëppoo li nga xam ne mooy alquran Cheikh Mouhamed Kounta yàlla suñu borom taxawoon ko ci loolu bu baax waaye moom jigéen foofu dafa sàmmanteel xolam fexe ba nga xam yàlla defal na ko xol bu sell ndax xol dafa séddilikoo ci ñeenti mbir mooy xol bi nga xam ni mooy xol bu saxee mooy xol bi wér te amul benn feebar beneen bi ci des mooy xar bi sëñ yi mooy xol bi nga xam ne dafa seetlu lool Cheikh Mouhamed Kounta nag fexewoon ba taxawoo taxawee foofu yàlla dafa ko xol boo xam ne xol bu wér la xol boo xam ne xol bu sell la waaye yàlla mu jël ko ci ñaari xol yu mujj yi mooy xol bi nga xam ni mooy euh, xol bi nga xam ne dafa feebar mooy xol bu may yàlla mu jël ko ci waaye yàlla jël tamit mu jël ko ci xol bi nga xam ni mooy xol bu may mooy xol bi nga xam ni xamul yàlla bëggul yàlla gëmul yàlla jëm fu ñu wootee yàlla sax Cheikh Moussa Diallo mu tënk ci loolu. ma la ñu wax nag ñi Cheikh Mouhamed Kounta mi moo doon yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñi mu doon yonent bi alayhi salaatu wa salaam boo xoolee dundam yëpp yàlla suñu borom subhanahu wa taala da ko teral parce que Cheikh Mouhamed Kounta moo duggee fii si Ndiassane fekkoon na Ndiassane nekk dëkk boobu am na am na ñu fi nekkoon doon jàppale ci ni ko Ismaël koy jëlee waaye bu mu ñëwee ba jub leer gi nga xam ni mooy Ndiassane yàlla dafa tànn ñoom ci lan ndax dafa am mission boo xam ni sa turandoo Cheikh Mouhamed Kounta da ko indi mooy mission la ilaha illallah muhammadu rasulullah waaye li gën a yéeme mooy mission boobu yàlla dafa fu mu ko dencal moo tax Cheikh Mouhamed Kounta ñëw ko rek rek bu Ndiassane da doon wër ndax di topp leer boobu leer boobu rek suñu borom ko defoon teel la ko defoon tey yaa ko wax mooy boo leen gisee fii alors que nga xam ni moo nekk fii ci buntu jàkka ji foofu la suñu borom subhanahu wa taala def leer gi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamed Kounta doon wër def ko ci dënnu góor yàlla mi nga xam ne moo tëdd fii kon maa ngi woo bokk taalibe yi ne leen ànd bi ne leen ko ziar ndax dafa def liaison ak direct ak Cheikh Mouhamed Kounta ndax ba sekk la leen wër muy sirru laa ilaaha illallah sirru boobu rek suñu borom subhanahu wa taala bu ko dendoon ci dënnu góor yàlla mi nga xam ne moo tëdd fii mooy am na bii ma jàkkaarloo loolu la Cheikh Omar Kounta toog muy nëbbu li gën a yéeme mooy sa turandoo Cheikh Omar Kounta nit ñi dañuy wax ni Cheikh Omar Kounta moo tax si yaay dëgg la waaye li ma gis ni benn xeer rek ñaari xeer la xeer bu dëgg bi mooy si yaay yi lan nga doon tubaab la mooy dox waaye Cheikh Omar Kounta dafa toog benn xeer bi gën a yéeme muy xool jàmm yàlla xool boobu lan moo doon ci baaxul mooy déglu xam-xam ragal yàlla moo tax boo ko sañcee dëkk bi yàlla subhaanahu wa taala da koo dafa def tegtal yu bëri ci dëkk bi mooy ndax suñu la laaj la xam ne xale yàlla defal na ndax ba sama borom subhaanahu wa taala di fee tajal ñi ci jëmm di ko génne génne leeram mu dem moo ñoo xam ni gëmuñu woon yàlla ñenn ñi nga xam ni gëmoon nañu yàlla waaye dinaw tax fi ñu ne. Cheikh Mouhamed Kounta Sobele kon kooku jàll nan la ko kooku nit ñi nekk benn nan la ko waaye nag suñu borom subhanahu wa taala defal ko lu kawe mooy izaa jaa nasrullaahi wal fath wa ra'ayta n-naasa yadkhuluuna fii diinillaahi afwaajaa ndax moom Cheikh Mouhamed Kounta bu mu ñëwee Ndiassane fii boo leen fekk fekk na ko fi ngir jaamu yàlla kon kooku taxawal na drapeau bi nga xam ne mooy drapeau islam Cheikh Mouhamed Kounta moom nag taxawal na drapeau bi nga xam ne mooy drapeau laa ilaaha illallah Muhammadu rasulullah moo tax benn nit yàlla wax ni ni Ndiassane ñu ngi gis ni sëru bi muy dox mooy lan mooy laa ilaaha illallah Muhammadu rasulullah mooy laa ilaaha illallah Muhammadu rasulullah mooy sëru bi nga xam ne mooy dox Ndiassane mooy wax ñu dañoo am kenn am mooy bu ñu leen dundoo subhanallah walhamdulillah bu leen deewee subhanallah walhamdulillah bu ñu bëggee subhanallah walhamdulillah kon yéen ñi ne yéen ñi nga xam ne yéen ay tànn bi sallallahu alayhi maa ngi leen di garanti maa ngi maa ngi leen di ñaax di leen wax mbégte boo xam ne mbégte la bu bare yéen ñi nga xam ne yéen a bokk ci kër di kër baat boobu subhanallah walhamdulillah da ngeen xam ni gannaaw loolu boo leen seetalee tuuti dafa yonent bi alayhi salaatu salaam da koo te kooku mu ngi dund fii ci réew mi yonent bi mu ne yonent bi salaatu salaam damaa bëgg a dama laa bëgg a rey yonent bi ne ko boo ma bëgg a rey rey Cheikh Sidi Yax mi nga xam ni moo nekk Ndiassane ndax Cheikh Sidi Yax moom moo ñu woon ko ci jamono moo tax Cheikh Mouhamed Kounta boo bëggee xam ni kii jàmm dafa yoroon ak benn boo xool ci doomam li mu nekk nii mooy xam-xam muy tànn Cheikh Afrika ndax dafa xam ne xam-xam moo mën a tax waaye xam-xam it moo mën a tax li nga xam ni mooy benn am waaye dafa am itam am ndax dañoo toll ci jamono joo xam ni suñu xarit day na wax même suñuy daje boobu ñu ko am fa tiyaaba ay jafe lool lan moo tax muy jafe mooy dañ doon yéenante ku nekk yaa xañ sa bopp cëram moo tax Cheikh Mahmoud dafa liggéey ci loolu bu ñu bëggee am jàmm dëgg-dëgg nañu fexe ku nekk li mu méngool la jox te loolu la jàpp ndax boo boolee ay tàcc bi bëri waaye ku nekk da laa teg ci bopp boo xam ne la ñu ñii mu yóbbu leen ci daara ñii mu yóbbu leen ci tool kon nañu jël bopp nekk cër di leen wax yàlla boole na leen bu mbaax yàlla def na leen lu rëy muy tax ñu chaque mois ñu dund buñ ko a dinañ raw fii ci àdduna dinañ raw ëllëg yëpp ak yàlla ndax yàlla moo ko teral yàlla moo ko teddal ndax teddal bi nag ci loxo yàlla la nekk te yàlla suñu borom subhanahu wa taala jox na ko ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamed Kounta maa ngi leen di ñaax ñeen taalibe yi di leen wax loo xam ne xëy na tey laa koy mujjee wax di wax loo xam ni nag lu tax ma ne tey laa koy mujjee wax ndax yoram sama bakkan sama borom moo yor sama bakkan te moo yor bakkan yëpp ndax bis bii mën naa ko fekk mën naa ko bañ a fekkee li ma leen wax mooy leen bokk taalibe yi yéen ñi nga xam ne yéen a gën gën Kunta da ngeen xam ne guddi Cheikh bi yéen taalibe yi yéen a ko moom dinaa leen wax benn mbir mu am solo mooy ndax suñu borom subhanahu wa taala lii nga xam ne mooy julli nit ñi dañuy wax naan kenn xam ku julleem am ak ah, yàlla nee na ku julleem am mooy ki nga xam ni dafay digle lu baax di tere ndax nee na julli loolu lay def ñu ne ba xam nit ki bu waree ba xam dina xam ni koor nangu la wala nangu yàlla koo wax si alquran ni koor daal day def ragal yàlla ci yéen kon ku koor te amul ragal yàlla na xam ni kooram nangu waaye ñun xaar yi ñu ñu gëm Cheikh Mouhamed Kounta guddi Cheikh moom mooy balance bi nga xam ni mooy peese ba xam ni gëm nañu Cheikh Mouhamed Kounta war a gëmuñu ko tey jii gasaan dafa war a fees ba nit war a am fu mu fu mu xaj ala taalibe ala njabootu taalibe fan lañ toll si Cheikh Mouhamed Kounta ndax dajaloo waxtaan ci Cheikh Mouhamed Kounta te boo xoolee léegi waxtaan daal mel ni théâtre mooy yi mel ni folklore te loolu nekkul loo xam ne lu war la ñun dañoo am lu rëy ndax suñu baat bi nga xam ne moom la ñuy sikkal benn bis yàlla nee subhanallah walhamdulillah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar yéen di ko fekk ne ko yoon bi mooy dem ci yàlla direct waaye dafa am benn waxtu ko te ñun xaar bi ñoo koy wax ci réew mi subhanallah walhamdulillah wa laa ilaaha illallah wallahu akbar kon lan moo doon suñu diggante àjjana lan moo doon suñu diggante ak àjjana nañ ko seetal te yéen a jàpp ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tuub di jégalu ñu ngi tuub di jégalu di leen wax ni na ngeen foog ko bërëb bi di Cheikh Mouhamed fii mu tëdd na ko foog di ko ziyaare nañ ko foog di ko ziyaare a Ndiassane delluwaat wala nga dëkk Ndiassane toog ay weer ba dugg ci pàpp bi yow nga leen laa gëm Cheikh Kounta da ngay nax sa bopp nañu bàyyi naxante bi dañuy waxante dëgg Cheikh Mouhamed Kounta dëgg la woote jàmm la woote nit sa xol bi am bu ci nekkee da nga xam ne boo ko a Mouhamed Kounta yow billahi wallahi dana xam ne boo ko Cheikh Mouhamed Kounta yow kon nag ñu rafetal suñu xol dañu yéene te jàmm te yàlla doogu tax dañu bëgg te yàlla li may tëjee mooy dañu doxal da ko ñu ñëpp te baalam te ak te muy dëgg si ñun ñu xam ni yàlla suñu borom subhanahu wa taala jàmm rek la woote ndax jàmm ñëw na fanweer ak ñett ci alquran waaw ñu ngi tuub bu baax a baax ñu ngi tuub bu baax ndax moo tuub woon sax ndax seen wax na tudd amul kenn moom sax ndax dañoo yor amul nekk seetaan ñu ngi tuub bu baax di jéego yàlla na yàlla dafa sutura ñu ngi lay ñaan suñu borom subhanahu wa taala lañ ñu wax yàlla nañ ko dégg te ñu yàlla bëgg naa ay ay ay ngi ci biir ay ouvrier ñi ngi ci biir ay surafaa ñi ci biir ak seen njaboot waaye mënoo leen xàmme ki am diplôme ak ki nga xam ni dafa jógee ay ci suba toog la mënoo leen xàmme ñoom ñëpp bokk duñ sol di ànd di liggéeyal moom Cheikh bu liggéey moom Cheikh bu taxawee mënoo cee xàmmee sëriñ ak taalibe bi ñoom ñëpp bokk lu ñuy sol te ñi jàppe ay sëriñ ñoo ci gën a sol kon yal na leen yàlla fay taxaw leen ñoom di borom ne xam-xam di ci sonn donc di yellu ñam ko pare di ko séddale ku sonn la wax dëgg yàlla ba pare ñëwaat ci def ji ndax tam li ci am solo mooy ku ko dégg xam ni li muy wax ci pas-pas da koo dund ndax wax bu dëgguwul ci li may wax mënul jóge ci xol te wax bu dee ci làmm la jóge ci nopp kese la yow sëñam di jazakumullahu xayran message bi mu wax ni maam Cheikh bi moom la ni moom la jàngale loolu muridanaa yow sama taalibe bi xaadir ak kii ne ci beneen tariixa muridanaa yow suñu taalibe kon foo nekk taalibe bi ku nekkal aabidan di jaamu yàlla wala si kan di koo xamante ne kuy sellal nga fu ñu digle doo ko absenté waaye lu ñu tere kenn du mustamsikan day ko jàppandu bi hablillahi ci yoonu yàlla bi moom la si maanaam baaxul a baax waxtasimu mooy leen bi hablillahi ci buumu yàlla di leen dajale yéen ñëpp wala tafarraqu te bu leen tàqali ko kon bi hablillahi ci buumu yàlla ay ba albani bi aji leer balaatu mayizan bul bul bul ràññee maanaam nee na yow xaadir bi bul ràññee nan kii muy jiw kii muy jiw kii soosale kii séeréer la kii lébu la walaatu mayisan bul ràññee walaatu faxiqan kon bul ràññee bay jéem a tàqale ibaada rabbil xalqi jaamu ki nga xam ni mooy borom càkkeef yi wal aqwaal yi waaye moom moom univers wax ni man qaala laa ilaha illa allah képp koo xam ni nee na laa ilaha illa allah fakul na nga nekk lahu ñeel kooku aw nañ bi ndimbal bi la examen te bu ci laaj kenn bu ci laaj ndimbal bu ci laaj ndimbal ba ko bay moom Cheikh Mouhamad Boutia bu dee jàngo ak jàngale islam ci moom la jeexee te nee nañu attarbiyatu bil bil bil xaal afdalu min attarbiyatu bil maqaal seen ay gaay sànq nee na moom affaire yi mi ngi guddi te jàngkat yi bari na. ñoom it noonu lañ koy doxal ma bëgg nag ñun ñëpp ñu àndandoo baat bi ñun ñëpp moo xam ko monsieur Pape Sow ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Kulaay Casamance di nuyu waa Sine. ñu ngi kontaan bi ñëpp maa ngi wax rek ñun ñëpp àndandoo sikka ndax nag loolu mooy sunu gànnaay mooy sunu aar na ko ñëpp wax subhanallah walhamdulillah la Zora tànk yu metti mbaa déglu yu metti lan bi diine sa gànnaay mën na leen benn la maa ngi ko. loolu soppee baa bi bisuma leen de ku jub taxaw ca kaw yàlla nga gisee baa bi ku la yomal xiyam man di lan bi diine sa gànnaay mën na leen benn Kunta ma wax leen ko ñoom ma jox thème lundi naa ma jox nañ la thème bu yaatu la doon kaas amee nañ la thème bu yaatu waxtaan ci seen Maami Kunta ñoo ñëw a waxtaan ci a mel ni seen Kunta ak toog fi bu ma yàlla dafa te nag jiitalu ma waaye ba nga am cinquante ans jëm ci suuf te sant boo mën a sant ci micro am na lu ma ci xam xëy na loo xamante ne xamoo ko ci yaakaar naa ci micro te nga bañ ma ko joxee tey suba laa ci def assuré ñu ne Pape Samba dama cee génne juróom-ñaari moxtal mu ko firi da ngay dama ne moom it islaamaat Cheikh Mouhamed Kounta fi intisaar ilmi min benn point Cheikh bu Makka Sabaa wa min islaamaat Cheikh Mouhamed Kounta ala daawatul musaara min ñaari point wa min islaamaat Cheikh Mouhamed Kounta bi hukmi muamalat ma al hukumat min ñett wa min islaamaat Cheikh Mouhamed Kounta wa min islaamaat Cheikh Mouhamed Kounta ah, wa min islaamaat Cheikh Mouhamed Kounta fi ah, tariq salaam ومن إزامة الشيخ محمد بن تدعو الجوار لا سيما كل أناس ومن سيام ومن ومن ومن ومن إسهامات الشيخ محمد بن في تربية المولدين والاستخامة أما الذي بخا أنت مني من راكو تجي ومن إسهامات الشيخ محمد بن بتكا بتكا من الإفريقي ما يجري تكراس أفريقيا بل بتجي كوبون ناتي وأنا يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم mooy ba rek ba ba ci Cheikh Mouhamed Kounta ñu ñaan ñebe man daa yi xoolal loolu tekki ba def tekki ba def billaahi billaahi wallaahi taala ko appliqué ku ma ñëw mu doon loxo teg ko fii Cheikh Mouhamed Kounta ku njëkkalante man bëri na ku njëkkalante nekk baax billaahi wallaahi taala ko appliqué mu ma tus ko ñëwaay ko tey ba muy jullee fajar barke nabi Moustapha moom même ay dana ma dundal jën ci man barke nabi Moustapha tey di fajar ku ñuy wax Fatima Kunta doomi Seex Kunta Seex Tuuba laa woon ko kaay Seex Muhammad fekk na ma léegi leen naa def moom xasida ci laa dina xasida gi ci moom waaye gars yi xamuñ ma waaye man kenn bëggoon naa ñu xam ma wax naa ko sax xam ne nee naa ko may ñëw aw ma aw ma woon njëkk pour ñëw donc bëggoon émission bi man li ma war a wax ci Seex Muhammad Kunta ma def ko ci émission lu doon su ma dindi nekk ci Seex Muhammad Kunta ñu la cinq minutes man mën naa waxtaan ci deux minutes ci Cheikh Mouhamed Kounta xam naa ko am wax loolu Cheikh Mouhamed Kounta moo ko war boppam ana badru satul aqtabi farida asli ma la xaani lan may badru lan may abda lan may satul aqtab moo jëm ci aqtab yi parce que abda quarante la ñuy door aqtab yi quatre quatre la ñuy door aqtab abda ku génn àdduna rek am na ku la remplacé ci aqtab bi Cheikh Mouhamed Kounta ne ba ma génne ci aqtab yi man nañ jëcce xutbu yi parrainage bi kañ la sama jamono maa la asaraan ci sumay maas moo tax nag univers bi ma doon wax léegi univers bi ma doon wax léegi la ñaan doo ko ko mu xool univers yi parce que xut bu boo gis woon dina wër si 30 univers ci day univers شعب الأرجاء من الأحزاب يتصرف على ستين عالما الأبرياء والأقنع عالم الواقع مبتكر أوائل نحن بين قدوم النصور سساتين بيت تبين ندتا أدنى على حد الذي بول من بيت نبيل من بيت من نخرج شهدين من نبيل يب شعب الأرجاء شخص ممعمل من دين نبيل يب ولنا بخطنا من نحن بنا من أقرأ عن الرد على الأسرار وفضل بشكل ذكي دار فأولي وجهي Gracias. ورعي عبيد كنتي مثل حالي ورعي عبيد كنتي بحساب دعي ومخرج في كل بلاد الإسلام Not that you make Muslim and Shias, they were not that. I was water. corruption mosuwoon siyaasa bi ak politique bu ñaaw bu réew mi di def Cheikh Oumar dafa ko dara nañu. formation lay doon wax naa ni doom Ndiassane moo defar sama maam ya moo defar sama baay ya waaye moo dimbal sama ngóor si mu sédd ma ma am cër li may wax yëpp ci biir ay waxu la ni moo tax bu toogatee jarul ñu may jox micro ndax li may wax jiitu ay wax foofu laa ko teg ñu ngi jéem a baax a baax ak yàlla jërëjëf macha allah. daal di waaye projet national bi Mouhamad bu ko defee. incha allah mu ñëw àggale ñu des ñu jotaay bi subhanallah di ndokkeel ñëpp di kontaan ci ñëpp di ziyaar ñëpp nuyu njabootu Cheikh Mohamed nuyu jumaam ji ñu jàkkaar lool te muy neegu bi nuyu ko ci réew doog bi moom njabootam gi tëdd yëpp nuyu Cheikh Sidi Yaxya mi nu janoon nuyu kër Cheikh Abdou Bekkaay fa tabaraka nuyu xalifa Cheikh Sidi Yaxya Cheikh Sidi Mouhamed nuyu xalifa Cheikh Al Bekkaay xalifa Cheikh Abdou Bekkaay di imaamu raatib bu Njaasaan na ñëpp wax ci seen làmmiñ xalifa bi yàlla na fi yàgg tëwe njabootu Cheikh Oumar Kounta yàlla na fi yàgg tëwe Cheikh Sidi Amar imaamu raatib bu Njaasaan yàlla na fi yàgg tëwe di nuyu suma bàyyi taalibe yi ziyaar na ñëpp fa tabaraka allahu waa bari gi gis nga leen dañoo ñëw nuroo leen maa ngi leen di ziyaar sama yaay di ziyaar sama jigéen gi nuyu mboole seen taalibe yi su ma ñemee tey damay ñëw waaye ñëpp maa ngi leen di ndokkeel Babacar di la ndokkeel di la massaw yow ak Moustapha Mbengue li ngeen yoroon dafa metti yàlla na yàlla jàppale leen ñoo ngi ziar Baye Abdou Majid Ndiaye di doomi Maam Abibou Ndiaye papa ñu ngi lay ziar kàddam ci turu waa Bargny yëpp di nuyu Cheikh Abdou Khadir Diakhaté ci turu Cheikh Moussa Diakhaté nuyu Cheikh Doro Sissoko waaye am fierté nuyu sama jabar Baye Amdi Ba mi toog yaru lool def fi waxtaan bu sama jarbaat la mun nee ko jur am nee ko jur am ni mare maa ko jur Meduna ma jur Abdou ko jur Meduna ko jur tabarakallah muy sunu fierté yal na yàlla barkeel la nuyu suma rakk bu baax Moustapha Mbengue ndokkeelaat ko taxawaay bi rafet na maa ngi leen di ndokkeel di nuyu waa Safinatul Qadriya fa tabarakallah nuyu Cheikh Pape Samba sama mag ndokkeel ko waaye nuyu Makou Mbaye nuyu Cheikh Pape Sow suñu baay ñi takk yonent Cheikh Ibrahima Ndoy fa tabarakallahu ñu lay nuyu di la ziyaara di la wàcc ci sa wàccuwaay Cheikh Alkaani ñëpp macha allah nuyu waa jamaatul islamiyatul mutamassikatu bi tariqatil qadiriyya wa taxtami wel mari xalifat Chabi Mouhamad nuyu waa AFCBD les amis fidèles de la Cheikh bu ñëw présidente Oulimata Fofana mu ngi fi ma suma yaay soxna Bore Ndioboj ñoom Marietou soxna Thioro bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp ñu ngi fi waaye man ñuy soxna Maguette bintu Cheikh Ibrahim tabarakallahu di ko ziyaar nuyu suma yaay soxna Fatma Babou Mane waaye nuyu Ndeye Marie suma doom mu taat day doy jóge ba Italie fekk si guddi maamam gi suma tante Fatma Bamba moom it jógee ba France taalibe yi daf leen koy jaral njabootu soxna Fat Fall soxna Yunus ak képp ku bokkal soxna Fat Fall soxna Ndiaye Fall di njabootu Alaaji Njoogu ak Mara Fall maa ngi leen di ziar di leen bisu bopp retour à la source kañ la samedi bi bu suba bi ñu ngi ci samedi kon samedi bii di ñëw la bu soobee yàlla na ko ñëpp waay soxna Awa Ba Nguura wa tabaarakallah maa ngi lay wuyaar bàyyiwuma kenn ak sa tukkoonat suma doom bàyyiwuma kenn nday astu cubb a cheikha maa ngi lay wuyaar ñoom ñëpp soxna nam fa tabarakallah maa ngi leen di wuyaar yéen ñëpp di leen ndokkeel ñi ma gis ak ñi ma gisul ñëpp maa ngi leen di ndokkeel mu mel ni mbay jaay nee na bis bi dafa am secret Serigne Koné maa ngi lay nuyu di nuyu si di faat suma rek dafa mel ni heure bii laa jëloon cër yaa ngi fa fekkoon heure bii exact ci laa jëloon cër yaa bàyyi ma yem foofu maa ngi ñaan kenn ku nekk nga dendal nga jox ko loxo di ko baal maa ko toog ñu dëgg ci yow tey loolu بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بل لما كان كنك من الجنة لقد قبل الله وإنك جئت jëmale Ndiassane Pape Samb wax na ko léegi yaram yëpp daw na dalal ngeen suñu xel da doon jigéen jàkkee ji Thank you. للمغرب مساجد سيدنا محمد شيخ سيد مختار كنتنين والأنبياء والأخبار ببعثه وبشر مين وير ويدك وآدم وقول لنيو jàkkaarloog soxna Aminatu di ko bégal kon kaanal yaa ëpp ki gën ci gaañ kooku mooy Sidona Muhammad Muhammad jigéen ñi déglu leen déglu leen yaayu Seyduna Muhammad mooy nettali soxna mi na neena weeru njëkk woon Adama moo njëkk a ñëw jàkkaarloo soxna mi na ñu ko bégal kontaanal kon yaa amu digal ci gaañi kooku mooy Seyduna Muhammad yaayu yónnee baax Isa moom dee ñëw ni ko soxna Amina tu bégal Amina tu kontaanal xanaa xamoo kii nga amul ëllëg sa aljana sama yaay Mariama soxnaam lay doon ta aljana mu sopp yaayu yóbbu say baaraam yaayu yónneen nee na yonent yaa ngay baaga ngay ñëw di ma bégal si naan ma amee la tu bégal waaye yaay yonent ba léegi yëgu ma dara lu may metti man soxna Amina sama biir yëgul na mu tolloon rek la toll soxna Amina nee na daw ma dox di jafte soxna Amina nee na benn dimanche si ngoon may doxantu ñële dañu daan jaar sama ma dégg baat bu naan ma yaay booy waaw ma tànkam lu benn yoon tegane lu may jommal la baat ba delluwaat ni ma lu ñaari yoon tegane lu may jommal la baat ba delluwaat ni ma yaay lu ñetti yoon tegane lu may jommal la te booba Seydina nga ca biiru yaayam ma ngay wax ak yaayam te boobu juddoogul nee ko yow sama yaay woo naa la ñetti yoon wuyu woo ma waaye na nga xam ne mii nga ëmb di Seydina Muhammad maa ngi dalalal sa xel yaay booy woo woo naa ma yow sama yaay sama yaay Muhammad Muhammad nga ca dama ngay wax yaayam te boobu góobul nee na ko yow sama yaay amuloo rab yow sama yaay amuloo jinne yow sama yaay amuloo malaayika man ni nga ëmb di si dinaa judd suba ci altine bi waaye jigéen ñi lii fi judd di tàggu yaayam maa mi bàyyi si ni la mi kunta rek la si dal na fa pay si lu naa mu xam naa mu xam yonent bi yonent bi ci biiru yaayam lañ ko defal fanweeri bañ ak ñaar yu ànd ak sàkkere yàlla cheikh nee na siduna muhammad daawul xaqataay waaye suma saana muñ isa takallama ruyaka nuuri yaxruju min bayni sanaya sanaya siduna muhammad ci biiru yaayam lañ ko defal fanweer ba ñaar ci biiru yaayam لا إله إلا

salaamaaleykum mbokk yi téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel ci télévision bi nga xam ne mooy RTT TV tey ñu ñëwoon ci guddi gi nga xam ne mooy guddi bark bi di guddi maam Cheikh Bou Kounta ñu fekk fii ñi nga xam ni ñoo boole seen bopp tuddee seen bopp njabootu maam Cheikh Bou Kounta ci njiitalu ki nga xam ne mooy daaw da Ndiaye waaye dañ koy bàyyi rek mu nuyoog téléspectateurs yi ñu seq ak moom ay waxtaan daaw na nga def. salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi ñi ngi lay fay nuyoo. di jottali nuyoo tamit sa mbokki téléspectateur yëpp euh, di leen nuyoo fii ci Ndiassane di dëkku maam Cheikh bu Mouhamed Kunta comme ni nga ko waxee occasion bi ñu dajale tey mooy di fàttaliku bis bi nga xamee ni ci la wuy ji woon boroomam di bisu ñaan di bisu barke di tombe it euh, nisfu Shaaban te ñëpp xam li ci xew ci barke kon ñi ngi lay fay nuyoo di nuyu say téléspectateur yëpp Euh, daw Daouda ñu ngi lay siyaar bu baax a baax di ñaanal mbooloo mi euh, yàlla na ko yàlla sàmm waaye yàlla dolli leen sutura aar leen mébét bi ngeen am ci liggéeyal maam Cheikh bu Kounta yéene bi yàlla na ko jëf ji ëpp fuuf yàlla na yaatoo yaatu bu baax a baax a baax tey ñu toll ci bis boo xam ni moom defe naa ni moom ngeen def seen bis mooy guddi maam Cheikh bu guddi cheikh bu nag buñ ko gisee tey gis nañ fi innovation yu bari dangeen cee feeñ bu baax a baax a baax ñu gis euh, mbooloo mi euh, yëg-yëg boobu nga am tey nga jiite mbooloo mu toll nii ku ñëw tey ci njaasaan xam ni innovation am na fi te yéen feeñ ngeen. Mm-hmm. waaw loolu euh, dafay dëggal waxi wolof bërëngu dajul suuf te du ko mës a daj waaru maam cheikh bu duñ ci mës a jeexal te mënuñu ko jeexal ndax ki la lebal loo ko mënta fay. ji la teraanga boo xam ni mérité woo ko kooku loo ko defal rek bu ko gis ndem gor nga ñun moo ñu sagal bu fekkee it euh, génn nañ suñu identité dëkkam lay nekk mais dafa romb ñun sax ba ci tund bi ñi ñu wër ku ci génn boo ko laajee foo dëkk dala naan njaasaan loolu sag la njaasaan a neex a tiitaroo njaasaan a neex a dëkk Euh, lu Sénégal yëngu-yëngu ñun yëguñu ko lu réew mi metti métti ñun yëguñu ko fii kenn du fi xiif ba yalwaani kenn tumuraankewu fi te kenn xatu fi euh, koo xam ni nii laataa mooy génn àdduna saxal na fi intégration africaine mu wóor ñu ni tamit bi ko réewi Afrique yi di xalaat vers les années 1940 la moom mu génn àdduna 1914 dajale fi lu mu néew néew juróomi nationalité yoo xam ne kenn xiiroowul ak sa moroom kenn xasul sa moroom ñooñu bokk tey ci ñuy doxal réew mi am fi cër mais kooku ñun amuñu fayam bi ci desit mooy mu yar ñu ci diine doomu Njaasaan ci tëroowul dara lu dul fu mu génn nekk fa référence amuñu beneen tiitar lijjantiwuñu leneen yi toppatoowuñu leneen lu dul fu ñu génn rek dañuy def suñu bopp ay ambassadeur am du suñu mën-mën tolluwaayam moo toll noonu euh, comme ni nga ko waxee nag yëg-yëg bi du dara lu dul jéem koo tarbiya waaye di jéem di fësal suñu cofeel ci moom mbooloo mi ñun ñëpp ay ndaw lañ ndax mbooloo moo xam ne booy xool ci ay at man mën naa bokk ci ñi ci mag donte am naa ci ay mag ñooñ ay ndaw rek lañ ñoom ñoo jéem lu mel noonu te li ñu jéem di ko def seen asaka yéene la muy góor nag di jigéen ànd nañ ci ak suñu yaay ñu boot ñu dimbali ñu ñoom it di ñu wan yoon te faqastaluñ en résumé daal dara taxul jug mbooloo mi lu dul fësal seen cofeel ci góor gi ak jéem di ko tarbiya seen kéem kartan macha allah. Euh, naka ngeen bëgg a àndee euh, te ñu bëgg liy daj réew mi yëpp. waaw ànd bi du ànd bu jafe. ndax euh, ñoo bokk fu ñuy rootee waaye it ñoo bokk ndaalu ñuy sotti ñun fa ñuy rootee ñun ñëpp du fenn fudul ci dexu maam Cheikh bu Mouhamad Kunta fa ñuy sotti it du fenn fudul ci ndaawal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu dañ koo bokk ak suñu mbokki tariqa yëpp te it ci lañu yar ndax dañi sama taalibe koo gis mu ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah na la gënal sa bopp ci loolu lañu yar donc ñun loolu lañu xam tey loolu la ñu gëm du waxi kese du waxi diplomatie mais ñun loolu la ñuy dund. du complexe moo tax doomu Njaasaan sax génn di bañ a fësal mbiru appartenance confrérique du complexe déedéet mais dañoo gëm ni fépp fu ñu nekk kañu fa nekkal muy kilifa dañ koy xoolee bët kilifa bi ñuy bàyyi Njaasaan loolu la mais amul dara lu ñuy complexe donc euh, ni ñu bëgg a àndeek ñi ñu ko seqal mooy nañ ànd wuti barke wuti barke bi nag ku ci nekk ci ñun da ngay effacer sa jëmm jéem a yar sa ego xam ni doo exister mukk ci kanamu mbooloo mi ñun li ñu boole moo exister mais suñuy jëmm ci individualité exister wul ñu bëgg cee ànd nag ak képp koo xam ne am nga cofeel ci maam Cheikh bu Mouhamed Kunta mais xëy na wàññi boo gis ci benn lay tàmbalee. mënul woon ñàkk tàmbalee Njaasaan du lu bees xëy na ren la ko ñu bari seetlu mais yàlla dogal na ren moo nekk suñu septième édition ci lii ñuy def waa jot na nag ñu yaatal ko Cheikh Bou Diop bi mu defee événement am juróomi at yu teg ñaar ci ni mu ko waxee sept ans dafa woote retour à kon jot na it ñun bu ñu defee juróom ñaar muy suñu mag ci pas-pas ñu yaatal suñuy mbir ndax ñoo bokk li ñu bëgg ñoo bokk ñu ki ñu bëgg te ñoo bokk li ñuy def euh, buñ jugee ci lii incha allah dinañ sol suñuy dàll seeti suñuy mbokki taalibe suñuy xarit suñuy frère ak suñuy sœur ci ñu bokkal génération parce que dama gëm ni xale mooy motive xale am na loo xam ne bu ko mag réussir xale dina toog daal ni ax ah, li muy mag moo tax mu mën ko mais bu gisee moroomu xaleem di ko def dina ni pourquoi pas moi moo tax dinañ seeti suñuy morom waxtaan ak ñoom ñu ànd wut barke jéemu ñëw déloger kenn ci mouvement ba mu bokk wala association bu mu bokk ñëwuñu encore une fois pour def concurrence ak kenn ñëwuñu tamit pour défier benn autorité mais dañoo ñëw pour ñu ànd tarbiyu maam Cheikh bu Mouhamed Kunta li ñu tuddee suñu bokk mooy njabootu maam Cheikh bu te gëwuma ni muy ki sant Kunta ki sant neneen am na kenn ku bugg la bokk ci njabootu maam Cheikh bu au sens figuré comme au sens propre donc loolu mooy li nga xam ne moo nekk ci suñu kanam te noonu lañ bëgg a ànd suñuy mbokki bopp macha allah. Euh, ginnaaw bu ñu ziaree ñi nga xam ni ñooy njabootu Cheikh Bou Kounta waaye dañuy ziar ñi nga xam ni ñooy 100 pour cent Pape Samba waaye di ziar les amis de Cheikh Bou Diop. Euh, di ziar ñi nga xam ne ñooy soldaaru borom Ndiassane waaye waa jamaa bi tamit ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ñaan ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi euh, dugg ci yooyu ma tudd yàlla defal leen jàmm waaye sàmm leen aar leen waaye dool leen xéwal yu bëree bëree bëri kon daaw de dañuy wax rek kàddu goo xam ne ñaax la ak woote. waaw bu fekkee ni ñaax dina am sunu bopp lañu ñu ñaax ndax euh, woote nu wuy si la yombul ci sens bi ma ko waxee mooy nga fekk nit toog nga ni ko kaañu ànd ci mbir mu ñëw gën la koo bëgg yombul loolu du kartanu kiy woote mais ñun ki ñuy wooteel moo toll noonu maam Cheikh bu waaw boo wootee lu toll noonu mu sagalee la lu toll nii kon ñaax bi mooy ñun nañu gën a laxasaayu ñaax bi mooy nañu gën a nekk benn ñaax bi mooy nañuy euh, mayante ngànt ñaax bi mooy na ku nekk sol mbubb aboka pour sa morom loolu mooy ñaax bi ñaax bi mooy nañu gën a am kilifa ñaax bi mooy nañu gën a bëggante secret bi foofu la nekk te ñu gën a xam ni ñun waruñoo wuti dara lu moy li gi am lu góor gi amul ñun du ñu yéem ndax gëm nañ ni li ñu bëgg yëpp mi ngi ci moom suñu mot de la fin nag mooy sant yàlla euh, sant yàlla euh, jàngkat yi dañ ni ku santul nit doo sant yàlla kon sant googu it dañ ci profito sant nja sëriñ bi di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram di ko ñaanal njabootam mais duñu mës a fàtte maam alaaji maam bu yàlla na ko yàlla yërëm Euh, yal na yàlla yokki leeram ñu ngi koy sant ndax lii ci xilaafaam la sosoo njabootam te ñu jàppale ñu buñ tuddee sëñ Ahmed mu yóbbaale ñëpp ci rakkam ak i collaborateur am waaye di sant di gërëm di ñaanal sëriñ Bekaay Bekaay Kunta yal na ko yàlla yërëm moom it euh, ni ki noonu ñu ngi koy defal njabootam buñ tuddee sëñ Mambu tudd Jeyli Abdou Khadr tudd porte parole ba sëñ Papa Abdourahman ñu yóbbaale géew ñu doon àndal ñëpp waaye ni ki noonu la ñuy sante di gërëm di ñaanal cheikh xalifa di porte parole sëriñ bi moom ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi waaye mënuñoo it bañ a sant imaam raati bu njaasaan di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam yàlla yàggal ko fi moom ak suñu kilifa yi ñu bokkal dëkk bi yëpp di sant nag di gërëm ñii ñu àndal ci liggéey bi ndax liggéey bi gënal na leen seen bopp gënal na leen seen i yittey kër gënal na leen leneen lu ñu waroon def ku ci nekk ci ñoom amoon nga ay gan wala waroon nga am ay gan mais gisoo ci dara nga ñëw toog fii ñëw ànd ngir bëgg barke barke boobu ñuy wut yàlla nañ dajeek moom li ñu mën ren bu déwénee na ñu mën lu ko ëpp fuuf te li mbooloo mi def buñ ko dajalee globalement ku ci nekk ci ñun benn benn déwén yàlla na nga mën lu ko ëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi di la ñaanal yow suñu frère nga ñoo bokk kër gi di ñaanal seen télé bi yal na ko yàlla yokk di ngeen ci bëgg yéen a ko xam yal na leen ko yàlla defal di leen jox rendez-vous très prochainement guddi cheikh bu déwén yàlla nañ fi fekk ñun ñëpp ci barke yontu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ànd ak wér mën ak tal te barke bi di gën di yaatu ñu koy gën di yëg fépp fu ñu toll lii yàlla buñ ci gis suñu bopp yàlla bu ñu yëg benn yoon ñi ñu ngi def effort loolu daal moo nekkoon kàddu gi salaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, jërëjëf kon euh, ñi ñu toogal ngeen gis leen noonu ak seen toogaayu yu yi mooy waa kër njabootu Cheikh bu Kounta waaye ci njiitalu daaw da Ndiaye ñu koy gërëm di ko ñaanal tamit yal na ko yàlla kàttanal waaye yal na ko yàlla dooleel. dooleel mbooloo mi waaye dooleel mbooloo yëpp yi nga xam ni ñu ngi ci keppaaru Cheikh bu Mohamed Kounta di ñaanal xalifa bi Cheikh bu Sidi Mokhtar. yal na ko yàlla dolli wér dooli ko kàttan yàlla sàmm ko aar ko waaye dooli ko xewal yu bëri dolli jàmm ci dëkk bi waaye dolli jàmm ci réew mi waaye dolli jàmm ci àdduna bi euh, fii la woon ci Ndiassane guddi maam Cheikh bu Kounta ak RTT TV 2024 jërë ngeen jëf.